الحمد لله الذي بعث محمدا نبيا ورسولا <clears throat> واغدق عليه من النعم الظاهره والباطنه ما لم يعط نبيا ولا رسولا احمده حمد من يعجز لسانه عن ذكر محاسنه خلق الخلق فسوى واختار محمدا بين الرسل وامته بين الامم واختار محمدا بين الرسل وامته بين الامم واختار شهر رجب من اشهر الحرم صلى الله عليه وعلى اله صلاه تنجينا به من الاهوال والاشرار والاسقام والصلاة والسلام على من أسراه ربه ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته صلاة تماثل حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله إن الإيمان بالغيب من صفات المتقين من المؤمنين حقا قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ثم اعلموا أن حادثة الإسراء والمعراج من المغيبات التي يجب الإيمان بها فالإيمان بها من قبيل الإيمان بربوبية الله تعالى وبقدرته المطلقة اللتين يقتضيان الإيمان يقتضيان الايمان بكل ما اخبر به تعالى بغض النظر عن موافقته للعقل المجرد او مخالفته ولقد قال تعالى في محكم تنزيله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ايها المؤمنون إن حادثة الإسراء والمعراج وصلت في عظمتها وعمقها في نفوس البشر إلى درجة يحتاج معها إلى تهيئة النفوس على قبولها فبصرف النظر عن كون الخالق تعالى القادر على كل شيء وصدر عنه هذا الخبر العجيب فلقد مهده وتعالى خبره هذا بتمجيد نفسه تعالى وتعظيم شأنه وتقدير قدرته الغير المحدوده فقال عز من قائل سبحان الذي اسرى ان نسبه هذا الخبر المعجز الى ذاته العليه يستلزم منه قطع جميع الشكوك حولها لان الفعل منسوب الى من هو قادر على كل شيء جل جلاله وعز كماله عباد الله جاءت حادثه الاسراء والمعراج لتكون أثرا عظيما في في التصرية لتكون أثرا عظيما في التصرية عن نفس حبيب الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتثبيته وتكريمه بعد أن فقد عمه أبا طالب وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها بعدهما عانى النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من أذى قريش ما لا يطيقه إلا مثله وهو شخص لا مثيل له في الصبر والتحمل الأذى كانت مدينة طائف مذنة مذنة ملجأ آمن له لما كان بينه أو لما كان بينه وبين أهله من قرابة إلا أن حالته في الطائف كانت أشد وأمر فلم يجد النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بدا من الرجوع إلى مكة المكرمة مسقط رأسه ومنبت الشهر ولما لم يجد ولما لم يجد حال مكة بأفضل مما خلف وراءه توجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كعادته إذا انقطعت السبل إلى ربه شاكيا همومه ومعاناته ملتمسا النصر ومجددا العزم على المضي قدما في تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى مستهينا كل الصعاب ما دام الله تعالى راضيا عنه أيها المؤمنون الإسراء رحلة أرضية ليلية من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في لمح البصر وأما المعراج فهو رحلة سماوية من بيت المقدس إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى حيث رأى النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آيات ربه العظمى وقد ثبتت الحادثة في القرآن الكريم والسنة الحبيب المحبوب محمد النبي خير العالمين يحكي لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام قصة الحادثة قائلا بينما أنا نائم في الحطيم وهو الحجر بالبيت الحرام إذ أتاني آت فشق صدري ثم استخرج قلبي ثم أتيت أو ثم أتيت بطشت من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشاه أو فغسل قلبي ثم حشاه آه، ثم حشاه ثم أعيد ثم أتيت بالبراق يضع خطوة عند أقصى منتهى طرفي فحمل النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت المقدس فجاء جبريل بإناء فيه خمر وآخر فيه لبن فاختار النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللبن فقال جبريل هديت وهديت أمتك ثم جمع الله له الأنبياء في بيت المقدس والله على كل شيء قدير جمعهم كرامة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه وحدة الدين وتمامه بالرسالة الأخيرة ونسخه لما عداها وصلى عليه الصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء ركعتين فهو الإمام المطبوع كرامة له ولأمته ثم صعد به جبريل إلى السماء الدنيا فلما وصلها طلب الإثنى فقال حارس السماء الدنيا من معك قال محمد قال أو قد بعث قال نعم قال فمرحبا به فنعم المجيء جاء وهكذا يفعل معه في كل سماء يرحب به وفي السماء الأولى وجد آدم عليه السلام فسلم عليه النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي صالح ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وفي السماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام وقد أعطي الشطر وقد أعطي شطر الحسن وفي الرابعة وجد إدريس عليه السلام وفي الخامسة وجد هارون عليه السلام وفي السادسة وجد موسى عليه السلام وفي السابعة وجد إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور يدخل كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون وكل منهم عليهم السلام يسلم عليه ويرحب به نفعنا الله تعالى مما سمعنا من الآيات وذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المؤمنون فبعد السماء السابعة عرج بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى سدرة المنتهى نهاية المخلوقات فأوحى الله إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة فلما نزل ومر بموسى عليه السلام قال له راجع ربك فقد جربت بني إسرائيل في أقل من ذلك فما زال يخفف المولى سبحانه وتعالى من خمسين إلى أربعين وثلاثين وعشرين وموسى عليه السلام في نصحه للنبي صلى, صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته يقول راجع ربك حتى بلغت خمسة فقال راجع ربك وصله التخفيف فقال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي فقال المولى سبحانه وتعالى إنه لا يبدل القول لدي هذا حديث جرى بين نبيكم وهو حي وبين أخيه موسى عليه السلام وهو ميت سبحان الله ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى فراشه في نفس الليلة قبل الصبح فلما كان في الصبح قص على أهله ما رأى فصدقه المصدق أبو بكر الصديق فأصبح صديقا وكذبه المكذب أبو جهل فأصبح كذابا نجي سنت برم سبحانه وتعالى يالا ميغا خامني مو يوني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم def ko mu nekk nabiyan wa rasula mu lëwalal ko ay may yu feeñ ak yu nëbbu yoo xam ne joxu ko benn yonent ci ñi ko paase maa ngi sant yàlla cant goo xam ne làmmiñ lott na pour wax dayo bi yàlla mi nga xam ne moo bind moo ñu bind ci anam bi mu gën a taaroo mu tànnal ñu sang bi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam def ko mu gën ci yonent yi tànn ñu ñu gën ci xeet yi mu tànn weer wi ñu nekk di weeru rajab mu boole ko ci ashhurul xurum mooy weer yi mu gën a fonk ci at mi ñu ngi ñaan yàlla mu jullil ñu ci ki nga xam ne moom la rañaanee woon jëlee ko ci masjidul haram ca makkatal mukarrama yóbbu ko ci masjidul aqsa nekk ca Shaam masjid bi nga xam ne yàlla dafa barkeel la ko wër lépp a barke pour lan pour yàlla won ko nag ci ay kéemtaanam yoo xam ne mosu koo won kenn kéemtaan yoo xam ne day tolloog kiy wane ak ki nga xam ne moom la ñuy wan bu loolu paasee bokk yi bokk na ci gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ak nekk bokk ci listi muttaqiin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla mooy nga gëm lépp loo xam ne dafa fàddu manoo koo gis manoo koo dégg manoo koo laal manoo koo mos manoo koo xeñtu ba pare yàlla wax la nga gëm ko nga gëm ko loolu mu ngi bokk ci waru gar yi nga xam ne dafa war képp ku ñu bind alquran wax na ne ci bopp suratu baqara alif lam mim dalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb nit ñi nga xam ne ñoo nangoo gëm yu fàddu yi yi nga xam ne xel kese mënu koo gëm xel mu jarrat mënu koo gëm ñooñu ñooy mu taqoon ñoom la yàlla tuddee mu taqoon mu taqoona nag daraja la ci escalier yi nga xam ne jullit daf koy yéeg waaw waaye seen melo mooy allazina yuminuuna bil xayb wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaam yunfiquun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون موي نيغا خامني داني ماتال بونكي نغم يي تي نم غنا رافيتي ماتال بونكي الاسلام تي نيم غنا رافيتي بو لولو باسي بوكي ماغي لين دي ييغال ني امنا خيو خيو بو خيوون تي جامانو بيغا خامي ني محمد مي يالا يوني تي نون صلى الله تعالى عليه وسلم خيوون نا تي جامانوم nekkoon teraanga boo xam ne yàlla moo ko ko jagleeloon waaye mu nekkoon nag xew-xew boo xam ne xel kese mënu koo gëm xel ak leneen a koy gëm waaw xel mi koy gëm dafa am dañ koy cuub dañ koy cuub ak yàlla waaye suñ ko cuubut ak yàlla rek du mën a dugg ci sa xel mi abadan euh, xew-xew boobu nag daf ñuy wan ñu ngi koy jëlee ci li ñuy tuddee al rububiyatul mutlaqa bi nga xam ne yàlla am na ko maanaam soo gëmee ne li fi ne lépp yàllaa ko fi def gëm ne yow ci sa bopp yàllaa la fi indi gëm ne lépp yàllaa koy doxal gëm ne yàlla moomu tëlewul dara su boobaa rek suñ la waxee xew-xew bi da nga ko mën a gëm ndax ki koy wax ki koy nettali mooy ki nga gëm ci moom lile ki nga gëm ne moo fi def lépp ki nga gëm ne moo la fi def ki nga gëm ne mooy doxal lépp ki nga gëm ne tëlewul dara kooku moom moo nettali moo ñuy nettalil xibaar bii nga xam ne moom laay wax si yàlla moo wax ci alquranul karim ne subhaana alladi asra mu tàmbalee ko tàmbaliwun bu yéemu li tax yàlla tàmbalee ko noonu yàlla moo bind doomu aadama te xam na xelam doomu aadama because li muy wax si neexut a gëm comme que neexut a gëm il faut mu prépare do xelam doomu aadama pour mu mën koo gëm loolu yëpp ci mbaax ak yàlla la nag ndax su ko neexoon it du pripéa sa xel mi te soo ko gëmul mu duma la waaye yàlla bëgg gim ñu bëgg ak yërëm gim ñu yërëm te du duma nit mukk feek wonut ko yoon ba pare mu bañ caa topp loolu moo tax mu pripéa suñ xel yi pour ñu man koo gëm ndax xibaar bi nag neexut a gëm moo tax mu ne subhaanalladi asra man yàlla miy wax si man yàlla mu sedd sell mi maa ngi tuddal sama bopp suma sell ci ne lu ma wax noonu la du fen duma jaxasoo duma fàtte lu ma wax rek noonu la lan laay wax si mooy man maa rañaanee suma jaam maa rañaanee xam nga yàlla su waxoon ne maa ngi maa ngi leen di yëgal ne Muhammad rañaanoon na doo ko mën a gëm because bu boobaa da ngay xool Muhammad comme niti ordinaire comme nit ak nit rek te nit feeg yaa ngi des ci sa nite gi li li li nga xam ne moo mooy xibaar bii nii doo ko man abadan saa yoo xamee ne li ñuy nettali si lu ku ñuy tuddee nit am na ko def na ko rek xamal ne génn nga ci sa nite yaa ci sa noomal nit nit ak leneen nga leneen loola nag yàlla moo ko def si yow moo tax suñu borom subhaanahu wa mu ne maa ngi tudd suma sell man yàlla mi nga xam ne maa ràññaanee suma jaam maa rañaane ki ko rañaanee mooy kan mooy yàlla mi tëlihut dara kon war nga koo gëm mu teg ci ne suma jaam mu won ñu fa kim rañaanee ne nit la koo xam ne nekkatul niti ordinaire takkal naa ko nomba tànk bi gën a foor ci li may takkal ab jullit mooy ubudiyatu mooy abdiyatu nangul naa ko ne suma jaam la loolu du lu yomb maanaam ñun ñii ñëpp fi ñu toll nii biñ juddoo ba tey dañuy góor góorlu rek pour nekk jaamab yàlla waaye amut ci kenn ci ñun koo xam ne yàlla wax na la ne la nangul naa la ne suma jaam nga yàlla su la nangulee ne suma jaam mooy sa yëpp tàlli na mooy yow fi ne nii macha allahu yaa nga ca kaw kii nag yonent bi sallallahu alayhi yàlla bi muy joxe xibaar yi lim njëkk a wax mooy maa ngi tudd suma sell man mi nga xam ne maa rañaanee suma jaam mooy ki nga xam ne jox naa ko takkal naa ko ndomba tànk bi gën a kowee ci lu may takkal koo xam ne euh, dama la bind te ngay nit tama sant la jëf te mooy Muhammad daf ko rañaanee suñ ne rañaan nag suñ ko waxee ci baati wolof tukkim guddi lay doon rañaan mënta nekk lu dul guddi waaw waaw euh, su fekkee bëccëg la taañaan lañ koy tuddee yéen ñi déggul wolof diw sàngam dafa taañaan mooy dafa dox bëccëg bi waaye ku dox guddi rañaan lañ koy tuddee yàlla suñ borom subhaanahu wa mu ne moom moo ko rañaanee mu jógee Makka dem ba baytil maqdis ci gaawaayu lan këfa xippi àgg na gaawaayu këfa xippi mu jógee ci Makka dem baytil maqdis xam nga loolu ñu ne loolu suñ ko doon dox ñaata ñu ne ñetti weer lañ koy dox soo koy dox danga koy dox ñetti weer këfa xippi mu àgg xam nga loolu neexut a gëm loolu mooy di réalité ki koy gëm dafa am lu tax nga gëm ko waaye du du du du nite yaa ñu ne ku ñuy tuddee koo xam ne ñu ne nit la eh, da dagg na distance tukki na distance boo xam ne doxum ñetti weer la nga def ko ci xëfa xippi loolu xel ba nu koo jël waaye ki ñu ko nettali forcé nag ñu man koo gëm ndax kooku mu ne moom moo ko ko defal te moom tëlihut dara yàlla ne lu tax ma defal ko loolu mu ne li nuriyahu min ayatina dama ko defal loolu pour won ko lenn ci suñuy kéemtaan lenn ci liy tegtale ne man maa fi ne keneen nekku fi lenn ci liy tegtale ne li fi ne lépp maa ko fi def te li fi ne lépp maa koy doxal aayaat suñ ko waxee aaya mooy vaas suñ ko waxee mooy tegtal mooy màndarga moo tax soo ñëwee ci alquranul karim li aaya yi bëri bari benn bu ci ne soo nalee sa xel mi danga ci gis yàlla danga ci gis danga ci gis màndarga mu mu lay tegtal ne ki ko wax mooy yàlla te ku dul moom mënu koo wax te ku dul moom mënu koo def moo tax ñu tuddee leen ay aayaat su la neexee nga tuddee ko ay kéemtaan waaye mooy màndarga aaya mooy màndarga littéralement waaye màndarga mi ci boppam kéemtaan la maanaam ñaari maanaa yi daf ci jaxasoo yàlla ne pour ma man koo wan lenn lenn ci lii tegtale ne man rek a fi ne min ayatina innahu huwa samiul basir yàlla nag dànkaafu ñu ne innahu huwa samiul basir yow mi koy bugg a weddi soo ko waxee dégg naa la yow fa nga toog sa xel mi di ci am ñaari xel gis naa la dégg naa la yàlla mi def lool mooy mooy mooy mooy gis yàlla mi def lool mooy dégg xam nga yàlla saa yoo gisee mu jox boppam melo te mboolem li doomu aadama am lépp jox na ci boppam melo mooy yàlla mooy la kon yow mi mi ci mi ci am moo la ci jox maanaam kuy gis yaa ngi gisee ci gisub yàlla kuy dégg yaa ngi déggee ci déggab yàlla maanaam yàlla moo lay may gis moo lay may dégg moo tax ba yi nga gis te mooy cër yi nga gis ñu mu mu mu tudd cëru gis mu tudd cëru gis léegoo léeg cër bi des fa te borom du gis bët mu ngi fi te boroom du gis noppang fi te boroom du dégg yooyu yëpp mu ngi fi waaye yàlla nag bis gis bi ko yitteel du gisi zaahir yàlla gisi baatin moo ko yitteel mooy gisi xol gisab xol kooku yàlla rek moo koy mën a def si yow loolu mooy hidaayatu soo ñëwee ci hidaayatu te mooy njub dafa am ñaari façon dañu am lu ñuy tuddee hidaayatu al irshad lolu ku nek man nako def fexe ba war la waxal la nga xam deug top ci ku nek man nako def waye hidayatu tawfiq lolu yàlla rek moko man manam fexe ba mbir mi dugg ci sa xol bi mu ne lolu mom mom moko jago lolu motax bi muy wax ak muhammad sallallahu taala alayhi wasallam wala ci alquran mu rotal fa ñaari hidaya te moy ñaari jup benn bi moy in innaka la wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim mu ne muhammad yow man ngaa won nit yoonu siraatal mustaqim mu waxaat mu muhammad ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasaaw duut ku la neex nga gindi ko waaye yàlla mooy gindi ku ko neex te mu ne ko yow da ngay gindee ci siraatal mustaqim moo tax boroom xam-xam yi ne bon gindi ñaari façon la hidaayatu irshad ak hidaayatu tawfiq mooy gindi a ci wan la yoon ak gindi ci dugal dara ci sa xol bi man mën naa ñëw waar la wax laa wax a wax a wax ba nga xam ne lii mooy dëgg waaye nag nga dugal ko ci sa xol bi gëm ko jëfee ko boobu nag yàlla mu ne suma boobu suma loxo la moom bi nga xam ne dañ ko koy baxee su boobaa isra ak miaraaj te mooy tukki moom nga xam ne yàlla nettali nañu ko ne defal na ko muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ci weeram wi ci lañ ne ci la ëpp ci waxi borom xam-xam yi ci ñu ngi ko tënkee ci këzun waaw kës kës mooy kaaf ak zaay mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi moom lañ ko séntu loolu defe naa ne dafay nekk si monde insha allah taala di al isra wal mi'raj loolu dafay yokk daraja bi nga xam ne weer wi ci boppam am na ko ba pare nga xam ne alquranul karim moo ñu ko waxoon lan mooy li xew ci isra ak mi'raj li ci xew mooy dafa ñëw waxtu woo xam ne ci natteekaayu doomu aadama maanaam doomu aadama bu des ci doomu aadama yaa xam dañoo jàpp ne dañ ko defaloon yónent bi sallallahu taala alayhi wa sallam pour dëfal ko dëfal moom la ñuy tuddee tasriya nit koo xam ne dafa nekk ci ay problème ñu indil la loo xam ne su fekkoon ci suñ jamono bi la daf laa jox li ñoo tuddee stress ñu ne diw sangam dafa stress waaw lu tax da am ay problème danga ñàkk danga feebar danga tiit da nga nangam da nga bañ nit sax walla lu demee noonu mu indil la stress maanaam mu ceeñ sa ni ngay doxee ni ngay waxee ba ku la xool dana xam ne yow mii normaalu la muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jaaroon ci loolu waaye loolu ku ñuy tuddee ab nëbbiyu rawatina muhammad loolu mënut koo jot déedéet dafa am loo xam ne su jiitoo ci yow leneen lii mënut laa jot su fekkee yàlla dafa jiitu ci yow su boobaa beneen feebar bi stress mënatuloo ko am lenn rek moo lay stress mooy nga gis ne nit ñi ñu ngi mooy yàlla nga gis ne li yàlla bëgg nekkul di am li li naqari yàlla rek ngay gis muy dox wa lolou mom man na la stress of course yes waye leneen li nga xamne mbiri poñetam adina la gi ni ay de ak yi ay ragal ak ay nangam ak yoy yoy poñetam adina la du dara lo xamne dafa itil suñ borom subhanahu wa taala lolou du stress nit ki nga xamne dafa jégué yalla motax stress xex bi ku bugg a stress ah, xex stress ni ngay def rek moy fexel ba boom gi la ak yalla fexel mu dëgër su ko defee lu ñëw yomb soo ñàkkee nga xam ne yàlla mooy maye mooy ñàkk jeex na tàkk te yàlla du def lu bon am na lum ci jublu lor mënul la ci ama amatul beneen stress soo feebaree yàlla mooy indi feebar yàlla mooy indi weer nga jël yëpp jox yàlla lim la wax mooy nga ut nooy def ba wér waaye di ko ragal nag di tiit ba nga xam ne dootoo mënatee nelaw loolu saa yu dalee nit nu mu la gën a dalee rek seeta na la wóor ne noonu la sa relationship ak sa borom noonu lay yoxomee moo tax soo ñëwee ci réew yi nga xam ne àddina mooy seen lépp dañoo jàpp ne àllaaxira amul dee dekki amul fay àllaaxira ñoom suñ gisee ne féel nañ rek dañuy xaru dee waaw because jeex na àddina bi jeex na lii laa bëggoon nangam naa féel naa lu ma fiy defati damay xaru dee waaye ki nga xam ne moom jullit la daf koy jël easily amul benn problème ci loolu mu dem dafay mel ni am dara dara happunut life dafaa dem muy continuer yooyu moo daloon muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam dafa toog at moo xam ne dafa metti lool wax dëgg yàlla ñim nga xam ne doomu aadama ñi nga ñi ngay yaakaar di sukkandiku ci ñoom sa baay dee sa maam dee sa bàjjan dee euh, sa soxna si la doon dimbale dee nangamati nangam euh, yéefar yi di la fenloo loo wax ñu ne waxoo dëgg euh, di nga maam yow njaberkat nga di la di la fexeel dëgg yi ñu di ko teg ci sa yoon wi di la tuumaal lu nekk dafa metti te yow wóor na la ne ci dëgg nga ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme que nag moom li ci moom nekkul ci ñun te ñun ñoo ko war a wuutu mu war ñoo jàngal nag lesin ne yow mi nga mii ñëw suma gannaaw su la yii jotee danga war a jël sabab ay sabab muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nag dem toxu ne damay toxu màkk dem dem dem dem dem taif ndax foofu am naa fa ay bokk xanaa su ma fa demee boog danaa mun a nooyi ba mu demee taay fekk fa lu gën a garaaw lim bàyyi makkatal mukarama ah yow yow xale bi eh, eh, ñëw di foontu xale bu juddoogul dem màkka di saaga seen bàyyi di leen di leen saboote naa nekku leen ci dëgg yàllaak yàllaay la xanaa yow danga bugg yàlla nekk kenn ah yow da ñàkk yar daal ko boolee dof ñu sànni xeer bañ gaañ ko moom muhammad sallallahu taala wa sallam deret ji génn su yàlla amoon xol ñu ne xolab yàlla yëngatu mu daldi yebal jibril alayhi salam ne demal wax ak wax ak suma jambil. lu mu bugg tay ma defal koko ñiko toroxal ni wax ko su bëgge tay ma bolante ñaari doj yi yi nga xamne ño wër tayef ñom ñepp ñu dé jibril ñëw ne ko sa borom moma yoni mu ne tay lo bëgg mu defal lako ndax ñi ñak na yar gaañ nañ la toroxal nañ la lo bëgg mu def ko mu ne déedéet so gisee ñu kontor ma dañ ma xamut man nit duma xam ba pare di kontor muhammad muhammad alaihi sallam kenn du ko xam ba pare kontoor ko Muhammad kenn du ko xam bañ ko maa ngi ñaan waxal sa borom ne ko waxal suma borom ne ko na leen na leen jéggal na leen bàyyi na leen bàyyi waaye tey lu xew suñ leen reyoon tey ña nga xam ne ñoo juddu ca ñoom tey ñoom ñooy tabax jàkka ya ñoom ñooy tabax alquran ñoom ñooy jàng alquran mbaax gi tey ñoom ñoo ko amee suñ borom noonu la mel mu wallahi naka la muhammad sallallahu taala wa sallam gën a kowee mboolem ñi ko jiitu ci ay yonent stress bi ba mu jotee nabiyulaahi euh, Moussa la euh, euh, nabiyulaahi Nuux lan la wax lan la wax yàlla ne ko yàlla ga gaa yi toog naa fi junney at yu manqué juróom fukkiyaat at dinaa leen kaay leen ci yàlla di leen oo ci yàlla faale huñ ma ñii duñ mos a baaxati te soo leen fi baxee seen doom yi ñu juddu duñ baax dama lay ñaan rey leen ñoom ñëpp loolu la loolu la nabiyulaahi Moussa wax suñ borom subhanahu wa taala moo tax moom bi ko yàlla moom moom moom waxut sax de waaye dañoo ñëw dañ ko ko ofa moom mu ne déedéet nañ leen bàyyi suñ leen bàyyee xëy na seen ndigg yi danañ ci jur ñoo xam ne danañ ma gëm te danañ ma topp te mbir mi noonu la demee muhammad sallallahu taala wa sallam bi nga xamee ne na yii xew na yàlla bëgg koo defal teraanga joo xam ne mosu koo defal kenn waaw teraanga ju mosta defal kenn mooy ne dëgg la nabiyulaahi Muusa salaam yàlla defaloon na ko xéewal ci naka xéewal goo xam ne mosu koo defal ñu ko jiitu keroog ba nga xamee ne nabiyulaay Muusa riir na wala lam la ko dal dal na ko ca misra ca Égypte bam rey fa nit ñu di ko fexeel mu daw bam dawee riir lu tolloon ñeen fukki at diggante bi am na fi jabar am fi njaboot wëñ di wëññeeku nag di dem misra bi mu demee ba mu yàgg ci bés ci guddi sedd bi géttéen leen mu seen ak leer mu jàpp ko ne safara la mu ne soxnaam seeg njaboot gi toog leen ngeen xaar ma ma dem fa fale xay na ma fekk fa safara jël ci gilit yi ñu sa ñu ñu jaaru wala ma fekk fa ku ñu wan yoon ba mu demee ba mu yàgg rek ba jub garab gi rek dégg ay baat bu bu koy bu koy bu koy woo yaa Moussa Moussa tii dal di gestoo fu nekk xamul xamul lan ma ko mu ne ko man la sa borom man man yàlla man maay wax ak yow su mel sa dàll yi place bi nga nekk dafa dafa dafa cher lool place bu tedd la dama la bugg a yónni nga dem ci na noonu ba nga xam ne dafa bëri doole ba jàpp ne man sax duuma yàlla mooy yàlla te nga def fan na te dawee fa moom laa lay yónni Moussa ne ko may ma ma ànd ak suma suma mbokk mi di Haaruna mi nga xam ne mooy mbokkam xissa bu gudd la waaye li ma ci tax a jóg mooy nabiyulaay Moussa alayhi salaam yàlla daf ko teraalee mu teralee mu dégg kàddoom kàddug yàlla direct يالا دا فا واخ القران الكريم نه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا نينا دوما واخ اك نيت موك لودول نيتي ادم رك لاي واخ اك نيت بن ما يوتال كو تا يوتال غوغو داف كاي داف ني باري باري باري نين ني صاح ليغو لي يالا يوتال لا نمود نك صاح رك ندو رك ني ماندار غام باخ لا ديدي امنا صاح نيت ньо خامني دانيي بون يالا يوتال لين يوتال غوغو موم لا ني الهام mooy yàlla def ci sa xel mi dara sa xol bi takk ko jàpp ni nii la te noonu la te ca yàlla la jógee loolu yàlla defal ko sax nit koo xam ne dafa bon yàlla defaloon na ko eh, eh, eh, yaay yaay Moussa yaay Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne jur na nabiyulaahi Moussa te booba na mu ngi ut góor ñi kum jot rendi yàlla daf ko yootal ne ko demal nga uti gaal demal nga nga dem ca kapinta ba mu mu daajal la kees. mu daaj kees dugalal sa doom ji mu dugal demal sànni ca géej ga lii nit la lii du waxi nit loolu loolu beneen affaire la maanaam amul kenn ku nite di def loolu lu ko ko def loolu suñ borom subhanahu wa taala because su jinne buggee daxaar ku yéeg daanu waaye li yàlla xéewalee Moussa te mu dégg baatam gis leer dégg baatam muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ba ko ko yàllay defal moom xam nga Moussa mbir mi daf ko bett daf doon dox bam yag rek mu séen dara xamul lu fa ne loolu ne ko man la man yàlla la waaw neex na lool nag motax bakoy yàlla laaje ne ko maa tilka bi yaminika yaa Moussa qaala hiya asaay atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu ukhra ba yàllay wax ak moom laaj ko benn laaj mu waroon a tontu benn tontu mu guddal wax ji ngir neexaayu wax yàlla ji moo ko neexoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla daf ko invite maanaam won ko ne ci moom lay dem moom yàlla moo ko invite maanaam bi muy jóg mission bi xam na ne mu ngi jëm ci yàlla mu dem yàlla defal ko lu mu defalul nabiyulaay Moussa ndax Moussa fam déggee kàddu yàlla place la boo xam ne place mbindeef la ci territoire mbindeef yi ca la ko gisee ci ay garab ak ay suuf ak nangam ak nangam nabiyulaay musa dafa dem ba passé territoire mbindeef boo daan mbindeef la nabiyullahi muhammad sallallahu alayhi wasallam jéggi dem ci booda fa nga xam ne mbindeef mosu fa dugg kenn du fa dugg ba jibril mi nga xam ne sax dañ ko bindee leer mënu faa dugg muhammad sallallahu alayhi wasallam foofa la dem kii dañ ko joxoor Moussa dañ ko joxoor kii nag dafa ñëw di muy yootlanteeg moom yàlla dalal ko ca na yàlla toll ca na yàlla xam mu dalal ko wax moom yàlla ne fa awxa ila abdihi ma awxa ma kadaba al fuaadu raa afatumarunahu ala ma yara yàlla ne man ma yotal suma jambi ma wax ak mom wax ju soufey wax ju ànd ak teranga ne ma jox ko fa lo xamne dama ko lëm waxuma ko ñep fa awha ila abdihi ma awha lañu ci yonent bi sallam xamal du daralu du juróom fukki julli yuñ wañi ba juróomi julli lam ko jox du lola de du lola rek de ak bari wajile te yonent bi sallam bayyi fi da yobbu fi dara lépp bayina ko gannaaw bàyyi na ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëriñoo ci gannaawam kon xaadisatul israa wal miraaj diggante makka ak baytil maqdis ci xëfa xippi la doo ko weddi moom itam ndax loolu mos na fee xew de jiitu woon na yonti yàlla muhammad saa sallam yonti yàlla suleymaan yonti yàlla suleymaan ba nga xamee ne ah, hudd hudd wax na ko ne ko am na buur bu nekk ci sa suuf si te dafay jaamu kudut sa yàlla ji te mu mu bëgg mu ñëw oysi ko dafa laajoon dagam yi moy ñiko wër kan moma mëna indil palais palais ba kuma ko mëna indil qala ifritun min al jinni ana atika bihi qabla an taqum min maqamik mbërëm jinne ma ne ko dana la ko indil bala nga jóg ci sa place bi al qur'an ne wa qala alladhi indahu ilmun min al kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk la ilaha illa allah nit yàlla ka ne ko loolu dafa yàgg man danaa la ko indil ci xëfa xippi laa la ko indil te booba la xewoon ca jamonoy nabi laay Muusa te nitug yàlla moo ko waxoon dama la koy indil ci xëfa xippi ci xëfa xippi mu gis pale bi ci kanamam noonu la mbir ma doxee woon waaw ndem loolu xewoon na ci jamonoy nabiyullaahi euh, euh, euh, naka lañ ko tuddee Suleymaan ah luy luy tere mu mën a xew ci jamonoy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko buraax mi nga xam ne kenn xamul ana buraax kenn xamul luy buraax buraax waruwaay la woo xam ne yàlla moo ko pripéya te amul keneen ku koy war kudut ku ko war kudut muhammad te kenn dootu ko warati kudut muhammad kenn xamul luy buraax kenn xamu ko yàlla séede na ko diggante xëfa xippi mu jógee màkka dem baytul maqdis benn ngoogu amul benn doomu aadama bu des ci sa doomu aadama yaa bo xamne man nga daw speed bu tollu nonu ta deewulo man ta nek amut fa xippi nga daw ko filen makka da ngay de amut man ta nek legi lolu xewna ba lolu xewé yàlla dajaleel ko fofa ca baytul maqdis anbiyaaw ya nga xamne deewon nañ ay junne junne junne junne at ñom ñep ñu teeru ko yonent bi saa salaam jiite leen julli wa taqaddamta lis salati fa sallu kulluhum muqtadin wa anta al imaamu yàlla defal ko muhammad yàlla won ko ne ko jiite gii nga leen jiite julli nag li muy tegtale mooy diine benn la ba yàlla tabaxee doomu aadama dalee ca maam aadama ba tey benn diine rek lam la yàlla mos a yeble mooy diiney lislaam loolu moo tax ba mu dajee ñëpp mu jiite leen تهيتم سوين دمي بغا قمنا أدنا دانا جيخ نبي الله عيسى دانا ديل سيوات فدلين دين جي دق موي دين الإسلام دينا قمنا موم لا يالا واتشي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وينك لكل منهم لكل منكم شرعة ومنهاجا يونن تبوتينا أمنا شريعة بوبام بوكو أوتلك شريعة مرمبا واي تشوسانو دين بيان لا تموي الإسلام واي كونك أمغا سترو بوب لولو نيت كسي مانو كو ديف jiite ay nit yu deewoon nangam ak nangam nga di leen gis di wax ak ñoom ci yow ngay dund ñoom ñu dee ku la ko wax ne nit mën na koo def du dëgg ñu jógee fa mu ànd ak gàngooram comme ni ko sëriñ Alioune Sakho waxee jibrilu santu la mikaa'ilu topp ci moom ànd ak malaaka ya taxdiman li da sha'ni keroog nga war ci buraax ràngoo garaati ngëneel mbooloo ma sënk say tiitar di saawaani keroog nga àgg ci péeyub yàlla dégg mu naan anna al muqaddasu anna allahu subhaani mu xotti asamaanu juróom-ñaar asamaan sum àgg ñu fëgg jibril fëgg ñu oyu ne kooku kan la man jibril koo ànd ak muhammad ah yàlla yónni na ko waaw yàlla yónni na ko ñu ubbi bunt bi yónnent bi sallallahu taala wa sallam bi yadihi sharifa ci loxoom bu tedd bi mu saafu wante ak ña nga xam ne deewoon nañ تكن قمود كن لن ديهون مصافو أنت نيوم ندلال كو تتغال كو مدلات نون لا قوتي أسمان جروم نيار سيخ سيد حاج مالك موني بآدم مرة عيسى يوسف وخنوق ثم هارون موسى والأب الرحيم نيوم نيو يوننتي نغا قمنا رمنا لن تي أسمان جروم نيار بني أجي فنغا قمنا موي بوداب مبنديف مبنديف ورو في باسي ñu war a continuer jibril ne sekk taxaw sang bi ne ko nañ dem yaa ma woon yoon wi di mu ne ko wallaay su ma sañoon ànd ak yow waaye benn jéego su ma ko seqee sa leerug borom gi lakk ma te moom jibril moom ñu ngi ko bind ci leer te ñu ne muhammad ñu ngi ko bind ci lëndëm wala ñu ngi ko bind ci suuf kon ban muhammad moo doon wax nii kon ban muhammad moo doon dem question la bu ñu war a boo xam ne day war nañ ko ansa kooku du muhammad mile kooku mooy muhammad mi nga xam ne moo jur aadama ci boppam muhammad mi jur aadama ak aadama ak muhammad mi aadama jur bokkuñu muhammad mi jur aadama mooy ahmad waaye aadama kim jur mooy muhammad ñaar ñooñu bokkut ki nga xam ne mooy ahmad moo fi jiitu lépp te ci moom la lépp jógee moom la cheikh sidi haaji malik di wax naan wa innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi nuura nabil alami dem ba ne inna alawalima aaliha wa saafilaha ashaatun talaat min afdali nusumi محمد رك لا يالا جيلي سي بوبام كودول كودول كودول محمد دو يالا نيون لا جيلي سي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم جيغينا بودابي يوت لانتنا اك يالا يالا واخنا كو لام كو فوا كين خاموت كين خاموت لون ني مل كين مانو كو تصور دو ني نيو خلات soy xalaat yàlla bul xalaat ci jëmm ji xalaatal ci jëf ji yàlla daf fi bàyyi ñaari téere benn téere bi moo lay jàngal benn téere bi da yàlla dafa am kitaabun masnuwa am kitaabun maqruwa ñaari téere yooyu la fi yàlla ba kitaabun maqru mooy alquranul karim bi nga xam ne melow yàlla la kitaabun masnuu mooy mboolem aalam bi yàlla bind yépp ab téere la boo xam ne dafay jàngale feeg nag dégguloo kitaabun masnuu doo mën a dégg kitaabun maqru képp koo xam ne mënoo a jàng àddina bi mënoo gis sew-sew yi mënoo gis secret yi ci yàlla def doo mën a dégg alquran mukk nag ndax alquran li ko tax a ñëw mooy kitaabun masnoo mooy jëfi yàlla yi moo ko fi tax a ñëw waaye ñëwul rek ci ak ndend gu fi gu dara nekkul il faut ñu understand loolu yàlla dal di ko jox lam ko fa jox waxun ñu lan la ko fa jox waaye li ñu ci muhammad saa sallam wax mooy juróom fukki julli ba mu ñëwee ba agsi ci nabiyullaahi Muusa mu ne fekk na ko mu ngay julli moom nabiyullaahi Muusa fii kasibin ahmar mu ngi ko fekk ci bal ci ci salleñ salleñ su xonq la fekk nabiyullaahi Muusa di julli nit nit fekk nabiyullaahi Muusa di julli comme nit la kook nit ak leneen la moo tax suñ borom subhanahu wa taala ba muy wax ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ne qul innama ana basharun mislukum waaye nag yuuxaa ilayya nit ak leneen nga leneen jooja nag keram moom la demee woon uy ji suñ borom subhanahu wa taala Moussa ne ko demal nga wax sa borom mu wàññi ko bare na maa la jiitu nattu naa sumay xeet waaye attanuñ lu mel noonu mu dem yàlla di ko wàññil di ko wàññil ba mu des juróom Moussa ne ko demal ne ko mu wàññi juróom yi mu ne ko ah léegi nag rus naa mënatumaa dellu ci suma borom bam ne wëriñ mu dégg kàddu yàlla ne ko yaa muhammad mu ne mu ne ko innahunna xamsun wa hunna xamsuun maa yubaddalul qawlu ladayya juróom juróom la waay juróom juróom la waaye ba tey juróom fukk la ndax man lu ma wax duma ci dellu naka lañ koy defee mu ne bon benn bi soo ko defee danaa la fay fukk kon saa yoo jullee juróomi julli am nga juróom fukki julli suñ borom subhanahu wa noonu la ko defee yonent bi saa sallam wëññeeku si ba mu agsee màkka tëdd ci lalam bi bër set situna Aïcha mi nga xam ne ca moom la moom la fanaan situna Aïcha ne man de mosuma tàggoog jëmmi Muhammad ji guddi gii mosuma cee tàggoog jëmmi Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te Muhammad dem na def na lim def kon lan moo demoon te du ruux gi de beneen Muhammad moo demoon yooyu lu xóot la lu jar a dégg la lan la sëriñ Alioune Sakho wax mu ne Abou Bakar Abou Jahal yokk kéefar gëm ne woon bañ a gëm abu bakar yokk imaanam bi iqaani mu ne nimal atiqu abu bakarin mu tedd ma tey njiital saxaaba yi moo am cër ci imaan ba mu ñëwee nettali kaay leen ñu ñëw mu ne biig dee guddi gi paase yàlla rañaanee na ma ma jógee fii dem baytil maqdis jógee fa dem sidratal muntaha nemmeeku diwaan yi jàkkarloog sama borom mu jox ma lim ma jox ma wëññeeku saat aboo jahal ne déggal aboubacar mu ne dégg nga sa waajeeti de dégg nga ko de waaw mu ngay mu ngay mu ngay waxati mu ngay mu ngay fenati ah foo mës a gis nit kuy wax ñu acca wan ñu sa tegtal man mos naa dem mos naa dem baytil maqdis wax ma euh, ñaata ñaata bunt la am suñ borom subhanahu wa taala indil ko baytil maqdis mu di ko gis te nit ñi gisuñ ko mu naan ko bunt sàngam féetee nangam bunt sàngam féetee nangam lépp luñ ko laaj yonent bi sallallahu taala sallam nettali ko ci baytil maqdis kooku mooy mu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam wala boog loolu ci mu muhammad la mi nga xam ne kenn mënu koo xam kudul ki nga xamne moko bind motax so ñewé ci salatul fatih lima ma mu jexé ci haqq qadrihi wa miqdaari al azim kenn manut la waxal muhammad kiñ mëna xam wala boog kenn manut la xamal xaqiqatul muhammadiyya way liñ la mëna xamal moy muhammad motax ñikoy ñi koy tagg ñëpp nak akum kum manti doon soo koy tagg da ngay dem bam yag nga wedem doto mën demati nga taxaw ne sik waaw Cheikh Sidi Hadj malik wax nako wax nako bim deme lan la wax بيم تاغي تاغ با سون مناتو تا ديم مون دال من كل وصف حميد حاز افعل تفضيل لو ريك لا واخ mbir mi xamatuma fuma jëm waaye dal so bëgge tag Muhammad dal waxal ne lépp lu bax rek lépp lu rafet lépp lu kowe rek mo amé la ci gëna kowe mu jeex tak lo rek lañ xam ci mo te mbolem ñiko jitu hit nonu lañ jaar ak mom yal nañu yàlla taas ci barke Muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam yal nañu yàlla xamal ci Muhammad yal nañu yàlla bëgg lo Muhammad yal nañu yàlla top lo Muhammad top sunnam ci te kenn nak kenn nak manut koo am lu dul nga topp sunna su muhammad sallallahu taala wa sallam ndax diiney lislaam duñ ko drible amul naxaate yàlla daf ko tabax ci anam bu leer naññ da ngay matal ponki ngëm yi ba pare mu éegal la nga dem ci ponki lislaam yi nga matal ko mu éegal la nga door a dem ci lexsaan soo ca àggee nag yàlla firi na rido yi sa digganteeg moom di la jox ci léppam li loo xam ne doo xam fu mu jógee duur lu ñuy bind ci téere duur lu ñuy lu kenn di mën a wax fa tabaarakallaahu da nga koy dund di ko mos yal nañu yàlla boole ci ñooñu allah wa sallu على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأقوم صلاة يعرفنا بها ربنا إياه اللهم اجعل أفضل صلواتك وأكمل تحياتك وأجمل تسليماتك على الفاتح للنبوة وخاتمها شمس السماء الرسالة النور الأنور والسر الأطهر صاحب الحوض والكوثر والشفاعة يوم المحشر سيد السادات الملك والبشر حجة الحق على الخلق سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا حضرة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه أمهات المؤمنين وتابعين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقموا الصلاة لا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله على ربك رب العالمين الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط لا معنى لما أعطيت لهم أعطيت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 ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته